destination Sénégal euh, destination Sénégal pardon muy euh, teen boobu itam nga xam ne euh, teenu Seydina Limaamu la moom it bëri taarix loolu yaakaar naa mun nañu am image yi voilà teen boobu lan lañ ci mën a wax. teen bi bëri nañu fay jógee di ut si ndox mi di. waaw bi mu ngi ball biñ ko dencee ba pare. waaw ah dencee ba pare. Mhm. ndax dafa am korte bu mujj gi mu def. Mhm. bàyyi ko nga paru di ñëw di julli si fii ñu ko denc tey foofu la daan julli korite ak tabaski mag ñaa ngi ko topp woykat baa ngi marche à reculons di ko jox xoro bi di ko way di ko way di ko way ba yàgg bu nekk ma daawul kiw la wax ku mu doon moo la kan fa mu ne mu continue mu nekk ba ma daawur kiw la ku mu doon moo la kan fu mu ne tafsir Ablaye Diallo bi nga doon wax mm. moo ko ne yow lay wax anta sidi awlinu sidi mu ne bu dëkkee maa la moom madu ku am dërëm booy jox Mamadou tegal ci sama loxo bu ëllëgee boo gisee Mamadou gis ma ma jël joxal la Mamadou boo gisul keneen ku dul man nga xam ne ana saay boo maay borom dërëm bi léegi nag mu daal di ne waaw ndax gis ngeen taaxum ruus mi xabrom bii lay wax te boobu dara nekk bu fi ñu nekk sang bi fi ñu gisul mu ne xalaas yéen a gis-gis gisuleen leen taaxum ruus mi ñu ne déedéet mu ne xanaa gis ngeen teen ba bii ñu nekk déedéet mu ne ndax am moos ku julli ñaar rakk fii naan ci teen ba bii mucc naal loolu wax na ko te tax mi nekk fi teen bi nekk fi. ñu denc ko teen bi balla génn góor nag man bàyyi Issa Mbaye moo ma nettali en 78 également génn góor moo ko wax nekk bi jib dalee jibli day wàcc na ca Kaaba ga duut na baaraamu su baaraam ba nga ñëw mu ngi ñëw ak gudd agsi na agsi na gi ak bi ndox mi jair di benn. teen bi nag du day mukk intarissable sauf les trois jours de Mouna et de Arafat waaw. Ah bu nit ñi nekkee mun na ak Arafat boo fa demee ubbi robinet bi mas naa fa ànd ak euh, seen man doomu lu lu jóg xale bi. jubilaay jubilaay jubilaay jubilaay ñëw ñëw na nuyu na ma fan yi gis nañu la ñëw ñëw na ci appel bi. waaye ah, keroog moom moo ñëw filmer pour le compte de la euh, TFM. pour ñu constater ce fait là période euh, fële. Mhm. Arafat mhm. ndox mi du am. thème bi tamit du du du tarir mais également ndox mi amul li saful xorom te c'est ak quelques encadres la loolu laa bëggoon yaa ngi dégg ci ci ci ci géej gi pratiquement la xaw a nekk waaw te mhm. euh, voilà ndox mi ndox mi saful xom déedéet man mii moom laay naan depuis vingt et un mm. bi ma demee màkk en 2001 ba fii mu nekk mhm. du ma naan Kirène du ma naan Evian mm. du ma naan robinet ndox mi laay naan ndox mi ànd na ak ay leer dañ war a jëfandikoo da koy naan te bu ko def fu am sobe mm. bu ko def fu am sobe muy dem ci rigol kon mënoo cee sangu. man nga cee sangu ba sangul sa néeg mbaa ci suuf si. wala sa terrasse ci doo sangoo ci wanag. waaw bu ko sangoo ci sobe sa rek. Mm-hmm. ndox mi noonu la sellee. te it nag baax na lool ci ren. Mm-hmm. waaw ba pare lépp dafa ànd ak leer. wax dëgg yàlla mooy nga cee daal ñu barkeelu. waaw mu ngi fii disponible wax dëgg yàlla amul benn problème. Ah. man damaa dem màkk. pendant un mois ba mu ñibbisee 15 jours muy 45 jours may naan sam zam ma ñëw nag daal di jël ndox mu jàmbalaay bi parce que jeexal naa sam zam mm-hmm. man naan mu nekk même saveur ma woo samay doom yu jigéen elles étaient majeures ma fekk xel fi kaas xel fi kaas ñu ñëw man leen ñamal man leen ñamal man leen damaa bëgg ngeen wax ban mooy Zamdam ak bon noo Jàmbalaay ñu ñam une deuxième gisuñu la distinction ma ne ko loolu laa xamoon bëggoon yéen ngeen xam. très mhm. euh, man sax euh, ci profité di sama sama benn yaay euh, mhm. Faty laay Wade. Mhm. xam bu baax. waaye damay àdduwaat rek ci lu jege livre bi mu bindoon sermon bi. mu làqoo en 1909 defe loolu ndax mën nga si ñëwaat ak taxawaay bi nga xamante ne kilifa boobee di Matar amaloon na ko ci. waa xutba bi. du sax Cheikh Makhtar Lo. waaye Abdou waaye Cheikh Makhtar dafa bind benn tiib la vie la vie exemplaire de Seydina Limam Laye. tudde ko bu sol mu hibiina o taxisul jaahilina mu ne gindi ko way réer yi mbégtey way gëm noonu la ko tudde daal di wax sa vie exemplaire. xutba bi nag boo gisee léppam nekk ci xol parce que bàyyi laay jàngul. xutba bi tamit da doon wax littéraire yi di ko bind. mu bàyyi fi juróomi xutba ñaar ya ca tegu Seydina Isaa moo ko joxe parce que moom moo ne woon Isaa mooy mottali mhm. du dëgg ca xutba yontu yàlla Isaa yooyu ca lay tere ñetti fan juróom-ñetti fan ñeent fukki guddi ndax amul lu njariñ niiw bi ña fay daje kay la seeni rangooñ di fer ñu jël seen lu ne bu dee jigéen ak ci kaw mhm. te naan naan ason da ko lekk waaye niiw ba dañ koy fàtte fan comme ni ñuy fàttee euh, ab liir ci ngénte rek. Mhm. liir moom dañ koy fàtte moo war ndaje mi. moo waral ndaje mi donc dëcc yooyu ba seen ay saa mu ngi ko tere. Mhm. ci xutbaam yooyu xutba yooyu nag mooy lépp lu mu digle ak lépp lu mu tere te lépp nag boo demee ci alxuraan fekk fa. laa waral euh, mu ne bés bu ngeen gisee ku ma ëpp lu mu digle ci lu baax ëpp ma lu mu tere ci lu bon mu ne bàyyi leen ma te dem ci kooku. kon bu dee nag jàpp leen ci man bu ngeen gisee beneen maadu bu doon ma ma ànd ak yéen dem ca. bu ngeen gisul ko doon man nag ngeen xam ne. macha allah macha allah kontaan nañu bu ñu sañoon duñ fi jógee. waaw suñu papa Seydina Issa Laye Diop mais euh, waxtu wi dab nañu dañuy dem xooli ñaari yéenekaay Groupe Futurs Médias dalal Oumy Samb ci météo bi doog ñëw nag yëkkati jataay ci kàttan yàlla. aywa ñaari yéenekaay yi muy l'observateur ak record sama gars yi dañoo daanu leer ba fàtte ñu ngi ci plateau bi aywa ñu dem ci l'observateur ak record. <laughs> Alaaji Malick moom mi ci appel.